Macky Sall nag defee yàlla ma solo ndax moo waxoon ba doon arrêté Idrissa Seck moo arrêté ay chantier moo tax sous section yi fi ne woon booba defoon nañ tey du ñëw lépp loo bañ ñu fay la ko rek bu ko def man euh, politique kii bi passé wote bi passé dama ñëw ni Idrissa dama woteel Macky waa Thiès ni ma du tax man leen moo wax ba du tëj Idrissa Seck moo wax ba du arrêté chantier yi man duma weddi sama bopp te loola ba naka ni ci moom la ngank moom la kii waaye rakkam lu ko waaye wax tooñ na ko mbir mi mbir mi Macky Sall wax ji wax coow la ca teen ba gaa yi amul baax rakk ji daa mënta weer magam rek waaye tooxi doona na bu mu dugg magam la tooxi noonu la ndax ñun dafa Marème mooy suñu présidente fi mu ne Macky du dara rek daa toog ci ma jabar ji rek di yàlla yàlla kese da ca toog yàlla daal di muy bàyyi ñun ci war xam nga fi mu ne Macky ndaw seenu yore de même yàlla na yàlla baal suñu sëriñ sax bu nekk daan ñoo ngi woo suñu doom Mariam Faye Sall aywa Mariam Sall lan la am fu mu ko doon ni fu mu ko amee man di koy seet Abdoulahat laa yor su ma noppee dafa mer eh, dafa mer su ma waxee ndey xuloo waaye ñun dañoo jël suñu bopp dugal ko ci xetax xam nga xetax mooy luy bojj di ko mbaam di deful seen bopp ñun foofu lañ toll tey bugguñu suñu bopp de te lii dama yàgg di ko bañ ndax man damaa yàgg di bañ te Boubacar Sall ba mu faloo jabaram daa war a falu doomam daa war a falu maa taxaw parce que kees yëpp booba fii Nicolas mu ngi ko wéer. bañ a leer xanaa moom mu daw xanaa mu daw yóbbu njabootam moom Macky Sall waaye li mu def su ko ñemee toog ba àddina sépp jóg sénégalais jóg dina leeral wala mu daw xam ne mooy sàcc bu mag bi jàngal ko rakkam ak jabaram.